أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suuratu yuusuf tey ñuy jël ñeenti aaya 39 40 41 42 ñeenti aaya yi sunu borom subhaanahu wa taala lim ñi ciy jàngal mooy ñeenti mbir ba ca jiitu mooy wujubu igtinaami lfursa liddaawati ila allahi taala dafa am ci kaw suuf ay jaami yàlla yoo xam ne ay jullit lañ xam nañ seen responsabilité lan mooy seen warugar ci suuf ay missionnaire lañ yoo xam ne ñoom ñoo fi toogal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo koy jottalil wooteem keroog ba mu waxee fali balligu anni walaw aaya keroog ba mu waxee fal yu ballighi shaahidu minkumul ghaib ñooñu dañoo jël seen responsabilité xam ne ñoom waruñoo noppi dañoo war a tasaare diine ñooñu nag def ci am ñoo xam ne dañoo rawante ci xam-xam am na ci ñoo xam ne ñoom yàlla may na leen occasion bu ñu am dañ koy def daawa bu ñu demee ci ngénte dañ koy def daawa buñ demee ci céet dañuy daawa buñ demee ci takkub sëy dañuy daawa fu ñu dem lépp daawa lay nekk ñoom daal même buñ duggee ci oto sax dañuy daawa occasion la ñuy def fu ñaari nit ñetti dajaloo rek ñoom dañuy jàllale seen diine loolu nag dañ koy jàng ci xissatu Yuusuf mooy occasion rek nga exploité daal di wooteel yàlla tabaraka wa taala parce que gis ngeen Yuusuf def na ko ci kaso bi ñu laaj ko ay laaj balaa muy tontu mu exploité temps bi leeral leen lu bëri doog a répondre question yi nga xam ne ñooñu moom la ñu soxla yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na lu mel noonu ci ay wàccuwaay ay yoon yu bëree bëri mooy ñu laaj ko balaa muy tontu mu leeral lu bëri ci diine doog a tontu loolu borom xam-xam yi daawa yi am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla yàlla may na leen capacité boobu dañuy ok dañuy profito dañuy profito waaw ñaareel bi mooy taqriru tawxid ani tariqi ahadisi saabiqin dañuy jàng tey saxal gi nga xam ne kennal yàlla tabaraka wa taala saxal na ko ci waxtaane ñu njëkk ña démb ñu bëree bëri dañu yaakaar ne tawxid tey la déedéet maanaa yàlla musul yónni diine boo xam ne amul tawxid wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wajtanibu taaxut yàlla nee na xeet u nekk yónni naa fa yonent pour lan nañu jaamu yàlla nañu moytandiku xërëm wa in min umma illa xala fiha nazir yàlla nee na xeet u nekk yónni naa leen ndaw wa laqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka addamir yaudu ila man muhammad yàlla nee na dee wala qad uhiya ilayka dee naa la yow muhammad wax yu naa ci yow waaye ndax yow rek la wa ila allazina min qablik ak ñi la fi jiitu woon kon daawa tawxid tàmbaliwul tey tawxid a ngi tàmbalee ba yàlla bindee asamaan ak suuf da yàlla santaane nañ ko wéetal buñ ko dendalee kenn wala lenn waaye doomu aadama yi ñoo yàqu comme ñun Sénégal nuñ koy waxee yàllay kese kese kese adduna bi yëpp loolu la koo wax mu ne ah yàllay kese kese rek loolu rek ah tee ngaa bàyyi ma dem ci maam yi lu ñu doon def tee ngaa bàyyi ma takk tee ngaa bàyyi ma naan tee ngaa bàyyi ma diw tee ngaa bàyyi ma wër tee ngaa bàyyi tee ngaa bàyyi loolu lañ lay wax soo waxee tey doomu aadama man yàlla kese mu ne la yow da ngay xaru da ngay dégg yenn saa yi ñu ne la ku gëmul xar fa fuufa xar fa fuufa ne la fuuf waaw soo gëmul xar fa fuufa ñu ne xar fa fuufa ne la fuuf tey ji ak a garaaw ci Sénégal nga taxaw di wax yàllay kese kese kese kese wala nga ne yow doo takk doo naan doo dem ci tuur doo dem ci gàllaaj doo def nangam maanaam yow da ngay nekk beneen doomu aadama ci nit ñi dañ naan loolu munul nekk xool ne na ɗo wuurirta ngo ɗo wuro wiya haɓɓata na yarata way lañ lay gëm loo yonent yi lan lañ takkoon ah allahu akbar beneen bi mooy ñun ñi toog fii ci biir jumaa ji balaa ñeneen ñi di di ci jot ñun ñi ñëpp suñu biiru yaay lan lañ takkoon kan ci suñu biiru yaay yaa takkoon ndomba wala béjjén wala gàllaaj yëkkati sa loxo foofu nga nekkoon ak fii nga toog fan moo ëpp sécurité ah dégg naa ñaar de foofu ak fii fan moo ëpp danger ah ah am na ñu ne foofu de ñi wax foofu ñaan lañ ni ñu yëkkati seen loxo ma xool ñi ne fii benn nit ñaari nit ah ñële ñoo ëpp de gaay te bukki nee na lu ñëpp wax mooy dëgg waaye ndax xaayida boobu d'accord ngeen ko lu ñëpp wax mooy dëgg loolu xaayida bu baaxul la tawxiid démb la woon yàlla diine tawxiid la am amul diine bokkaale yonent yëpp tawxiid lañu indi lan mooy dalil bi ah lan mooy dalil ne yàlla diine tawxiid la am amul diine bokkaale aaya alxuraan moo ko wax léegi-léegi jàng na aaya bi wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asrakta wala beneen yaaya mu ne yàlla tabaraka wa taala mu ne an ibudullah wajtanibu taaxut jaamu leen yàlla bàyyi leen xërëm yi beneen bi yàlla mu ne man maa yónni yonent yi amul yonent bu mu musa yónni lu dul digal naa ko nañ ma jaamu man yàlla kese kese kese kese kese kese loolu kon yàlla tabaraka wa taala benn diine la mooy diine tawxid moo tax ñuy tuddee ibrahima imaamul muwahidiin mu ngoog ñetteel mooy laa hukma fi shay illa bi xikmillahi bi hukmillahi taala falxaqu ma axaqahu llah walbatil ma abtalahu llah waddin ma sharaahu laa hukma fi shay illa bi hukmillahi taala man a acte yàlla moo ko moom xam nga tey da ngay jàng ñu ne tawxid kam aqsaamu tawxid ñu ne la salaasa tawxidul uluhi tawxidul rububi tawxidul asma am na boroom xam-xam yoo xam ne dañoo lànk ñett yi dañu ne tawxid ñeent la ñooñu ban lañ ci dugal mooy tawxidul xaakim yi mooy atte yàllaa ko moom kenn amul droit samp justice ci kaw suuf di bàyyi atte yàlla te dëgg la man kuréel googu laa àndal ñu def ñeent xoolal tey ni ñu négliger atte te atte moom moo yor adduna lan moo tax jullit yi naxas na sax lu tax ñàkk atte woo diine tey suñ doon atte woo sharia kon diine bi day taxaw mais éliminer bi ñu éliminer ahkaam boobu hukmu boobu te yàlla moo ko wax de dalil bi ci alquran inil hukmu ñu jël ko teg ko fële moo tax tawhidul rububiyya du mun a baax tawhidul uluhiyya du mun a baax tawhidul asma wa sifa du mun a baax lu tax parce que amuñu tawhid bu ñuy atteloo loolu ba pare yàlla mu ne encore subhanahu wa taala pour wax leen ne tawhid yàlla moo ko moom subhanahu wa taala mooy sunu borom nee na fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum giñ naa ci sama boroom seen boroom sa boroom yow muhammad fala wa rabbika la yuminuun giñ naa ci sa borom yow muhammad laa yuminu nit ñi duñ gëm yàlla xatta yu xàkkimuka fi ma shajara baynahum lu dul lañ laa àtteeloo li lëndëm ci seeni mbir waaye summa laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima kon gis ngeen àtte yàllaa ko moom beneen bi yàlla mu ne alam tara ila allazina yazamuuna annahum amanu bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika lan la yàlla foofu yuriduuna an yataxaakamu ila taxut te waqad umiru an yakfuru bi moo tax tawxiid atte fekk samp wuñ ko fekk dugaluñ ko ci sunu jàng yi def ko boole ko ci téere yi sunu diine du baax moo tax gis nga nuñ ñu naxee sànni ko fële indil ñi lu kenn xamut mu tawhidul uluhiyya mënul baax tawhidul rububiyya du baax tawhidul asmaa wa sifaat du baax lu dul dañoo àtte wa sharia ba pare imaginel ki gëm ne yàllaay kenn mais yàlla du ma àtte kooku tawhidam est-ce que wér na gëm naa ne yàlla mooy buur bi ma war a jaamu waaye nag ma wax dëgg yàlla du ma àtte nag doo ma àtte mais loolu yow gëm nga yàlla du nekk dara taxul tawhid sampu lu dul ñàkk àtte wa téere yàlla loolu tax jullit yi damay wax bés bu nekk am na événement yu xew Sénégal ñun ñëpp yàlla dinañu duma ci événement yooyu bu ko xoolee Abdoulaye Wade dafa ne dafay def troisième mandat wala Sénégal gi yëpp ànd la nga amul ci giri assemblée ñu ne ko du fi am am na wala amul maa bëgg ngeen tontu am na wala amul amul Macky Sall tëj Sonko ñu ne ko doo ko fi tëj fal force da nga koy bàyyi waa Sénégal jóg ñu bàyyi ko alays kazalik lu sax waa Sénégal duñ jóg ndax ñu àttewoo lislaam jóg ngeen troisième mandat amul ngeen jóg kenn tëjul Sonko lu sax du ngeen tëj ngir islam du ngeen jóg ndax lislaam loolu dëgg la wala dëgg kon ñun lan lañ gëm gëmuñu lislaam lislaam du ñu yëngal soo waxee mars am na sax góor jigéen doo gis kenn góor jigéen góor jigéen góor jigéen saa su ma demoon tey te gis ñu la suñu diine ñoruñ waaw mooy suñu wax diine bi ñoruñu suñu diine ñoroon kon dinañ ko yëngatul allahu akbar ku diine ñor da nga yëngatul diine waaye diine bu la intéressé wul gëmoo diine ay waxu kese liñ gëm ci diine mooy julli woor yu ndaw ndawaan yu sedd yooyu loolu tax mënuñu ñu am problème bu rëy rëy rëy imaginel réew mu toll na Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman tey jii bu ñu fiy wax ay góor jigéen ak ay lan ah ay lan du ngeen wax ay lan yu xam ne sawaay kenn mënul nekk jullit di xalaat yooyu tey jii ñi ñu koy wax fu ñu jëm kon nañ fexe téere yàlla bi di ñu àtte nañ fexe ñu àtte woo téere yàlla bi loolu nag projet la projet la projet la ni politiciens yi amee seen projet di ko liggéeyal di yéeg bu yeboo ñun tamit ñu ut suñu projet islam te jot na de jot na de ñam ngeen lu nekk mënul baax dem ngeen ci capitalisme demul dem ngeen ci libéralisme demul dem ngeen ci socialisme demul dem ngeen ci communisme demul dem ngeen ci lim leen parti yi idéologie yi bu nekk ñam ngeen ko demut ñam leen islam nag ah ndax jotul julli ñu génne ne waa léegi yéen yiite ngeen ba sonn dara demut bàyyi leen ñu essayé waaye de ay boo fi génnoon ne lis balaa nga ne laam rek ñu ne terroriste wala ñu ne fondamentaliste wala ñu ne islamiste wala ñu ne ah jihadis dis is is is yooyu is is moo tax ñun ñëpp ndeysaan ñu ne nii te ñoom buñ buggee samp seeni mbir yooyu ñoom seen yoon nekku ci dañ koy xeexal ba dugg baat vocal ay paa sax nga gis ñu yor ay xeer naan nii paa yu màgget di xeex ana waa lislaam neexul ba neexul mais olof yi ñoo wax ne uude num la gisee noonu la lay ëwalee li tax ñu ñuy foowe def leen ni ku nekk defal ni ñun la ñun waaw suñu bopp kon laa hukma fi shay illa bi hukmillahi taala fal xaqu ma axaqahu llah dëgg mooy yàlla ne mooy dëgg fa maza baadal xaq ginnaaw dëgg lan moo fa nekk dëgg mooy lu yàlla ne lii mooy dëgg te yàlla neen téeréem bi mooy dëgg caaxaan mooy lu yàlla ne caaxaan la te lu dul téere yàlla bi caaxaan la wa diinu ma sharaahu diine du lu doomu aadama yi di wax sànq damay dañ maa woo ci benn masala benn waay mu ne waaw tabaski ay nit la daal yu nekkoon ci benn grand place xam naa di werante ñu woo ma téléphone def ko main libre lu ñu doon ferante kenn ki deneen moom tabaski fal force la soo mënee soo mënul da ngay def ñeneen ñi ne ko déedéet tabaski sunna mu akkada la moom mu ne ndax sunna dina nekk lu ndaw ndax yonent bi moom lépp lu ñu ko sant rek fal force da nga ko war a def ma ne ko déet mu ne loolu la ma sama sëriñ jàngal ah est-ce que sa sëriñ juumul ma ne ko sunna yi dañoo sutante même ci julli boo demee tey boo bàyyee subhaana rabbiyal aala wala nga bàyyi subhaana rabbiyal azim ak nga bàyyi taaya ñaar ñooñu bu ëpp doole ah ma ne ko boo bàyyee taaya da ngay sujjóot mais yow boo ko bàyyee doo sujjóot dafa am sunna mu akkada am sunna xayru mu akkada soo bàyyee benn sunna mu akkada da ngay sujjóot soo bàyyee ñaari sunna xayru mu akkada ngay doog a sujjóot kon sujjóot kon kon sunna bi dafa dafa ëppante moom nag loolu lay bañ a dégg nee na lu nekk ci yonent bi kenn du ko ndawal mais mel ko kenn ndawalu ko mais yonent bi moom moo ko àttee noonu yonent bi moo ko àttee noonu moo ko leerale noonu kon su ko defee ñu xamee ko noonu xam ne diine mooy lu yàlla wax dëgg mooy lu yàlla ne lii mooy dëgg caaxaan mooy lu téere bi wax lii caaxaan la diine nag yàlla moo ko santaane ad diinu ma sharaahu képp ku jël dara di ci jaamoo yàlla fekk sharia waxu ci loolu da ngay sonal sa bopp doo am tiyaaba ah nangu ngeen wala nangu leen boo fi takkee ay rajo nekk fay di yuuxu ci gudd gi laa laa di yuuxu amoo benn tiyaaba ndax loolu lan la du sharia leer na wala leeru bu ngeen bëggee ñu dugg ci yeneen yi tamit aussi sharia diine mooy lu yonent bi ne lii def leen ko lépp lu yonent bi ne def leen ko loolu sariya la waaye jékki-jékki rek sa waay crée say mbiri bopp ñu ne de nga ne da ngay julli fay faat li julli fay faat xam ngeen ko ñaari ràkka yi boo ko defee adduna bi li nga julli woon yëpp yàlla fay na la ko loolu moom du diine parce que nekkul ci sariya ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne yéen a ko gën a xam xëy ndox di sotti bunt ndox sa bunt kër loolu diine Sénégal la wala du diine ah ñi koy def ak ñi ko dul def ñan ñoo ëpp ñi koy def ndax santaane yàlla la ndax santaane yonent bi la bidaa la sotti ndox ci oto yeeg garage yeeg koo gis day sotti ndox moom fajar naa li ñuy sotti bokk na ci li seeral facture yi bëri na kuy jooy fekk li ngay sotti ndox la sa buntu kër boo ko limité woon nga wàññi nga toog ñaari weer nga xool ndax sa facture di wàññeeku te am na ci maire yoo xam ne bu ñuy sotti paan la ñuy yor ñoom seen yoon nekku ci parce que fayuñu fayaanuñu seen doom yeey fay ñoom xamuñu nu muy ñëwee dañuy sotti rek am na benn sëriñ bu fi xëyoon ne ku nekk na nga sotti ñeenti paan ne ko tey ngeen dee de ñeenti paanu ndox loolu ñaata la xaalis loolu facture la de Sénégal yëpp ku nekk jël paanu ndox jur jur ci buntu kër yi laa ilaha illa ndax tax na mu sedd ndax tax na Sénégal sedd loolu du diine ñeenteel mooy masruiyatul istifta ala kulli mushkilin min al umur dafa jaadu dañoo yoonal ubbi firi leeral ci bépp problème rek jullit yi war nañ koo leer lu ñu leeralal leen ko bépp problème waaye leeral yi tamit war nañ ci def attention semaine bi la passé dama liir benn xista boo xam ne imam bi ko doon jàngale nee na moom dafa tiit non non ma ne imam boobu warul tiit ñun ñi ñu ñoo war a tiit avant l'islam ñëw dafa am kenn ku tuddoon amru ku fi nekk ku amoon xam-xam ñenn ñi ñu ne diine yonent yàlla mu Ibrahima la doon àttee ñenn ñu ne noonoo dafa amoon xam-xam rek nit ñi di ñëw ci moom di ko laaj mu leen di wax mais fekkewul lislaam moom moo fi juuti lislaam tuuti waa jooju benn bis ñu indil ko benn masala benn waa dëkk ne ko dañoo ñëw jóge seen dëkk ñëw ci moom ne ko ñun liñ fi indi mooy masala bi dañoo am benn mbokk boo xam ne dafa am ñaari sexe dafa am sexe góor am sexe su jigéen léegi nag papaam daa dee mu war a doon miraas ban cër lañ koy jox dañ koy jox cëru góor wala cëru jigéen moom sëriñ bi xamul laaj bi mu ne leen toog leen après dinaa leen ko wax ñooñu daal di toog lan lañ ko laaj dañoo am benn mbokk dafa am ñaari sexe xam nga loolu day am yenn saay ñi ngay gisee accident nit am ñaari bopp wala ñaari nit yu kole noonu lay amee nit ku juddu am ñaari sexe bu góor ak bu jigéen léegi nag kooku ci wàllu miraas su fekkee ne côté góor ñaata la war a am su fekkee côté jigéen ñaata la war a am léegi nag moo ngi moo ngi nii taxaw ban lañ koy jox loolu lañ laaj sëriñ bi mu ne leen ah dinaa leen ko wax ñu toog toog toog toog toog toog affaire bi yàgg trop ba benn bis rek sàmmkat bu jigéen bi ñëw ne ko xar yaa ngi bëgg a jeex de mu ne ko lu ko jeexal mu ne ko gan yi nga wax nañ toog ñooy lekk bis bu nekk benn de reere benn ndékkee benn añe benn mu ne ko gan yi de dañ ma fee laaj masala boo xam ne xaw ma ko mu ne ko ban masala la mu ne ko dañ ne seen benn mbokk dafa am ñaari awra awra góor awra jigéen léegi ci miraas la dañ ko war a jox xamuñu luñ koy jox ndax xamuñu ban lañ koy jox mu ne ko yow tamit sëriñ bi loolu nu mu yombee mu ne ko lan la mu ne ko da ngay xool fu muy tuure ndox fu muy sawee bu fekkee bu góor bi lay sawee kon góor la bu dee fële la jigéen la loolu rek kii wax nga dëgg rek allah gis nga waaye xam nga lan mooy hikma bi kooku mushrik la dañ ko laaj benn masala mu toog weer di ci xalaat pour tontu ñun buñ ñu laajee rek nu ñuy def ñun ku gëmul yàlla ñu laaj ko masala mu toog weer di ci xalaat yow nga gëm yàlla ñu laaj la léegi nga tontu ndax loolu du danger al imam Awzaa'i mu ne li ko tiital mooy yéeféer bi dañ ko laaj masala mu toog weer di xalaat ba yàlla indil ko masala bi mu ne jullit bi da nga koy laaj léegi mu tontu léegi léegi léegi léegi seconde te yéeféer bi moom ragal a tontu la ilaha illa allah loolu waruñu tiital noonu lañ yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko kon mbokk jullit yi ñeenti aaya yi moom mu war a nekk tey sunu dars ñoo ngi ñaan sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñ tarxiis ñu bàyyi seex bi mu jàngal ñu aaya yi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين barakallahu fiik jazakallahu xayran yal na yàlla fayal ñu la yiw sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ne yaa saahiba sijini e yéen sama mbokk yi ñu boole tëj ci kaso bi kan moo wax li Yusuf mu ne laaj nañ ko ab laaj fan lañ ko ko laajee ci biir kaso bi pour wax leen ne nit fu mu war a nekk dafa li war a liggéeyal yàlla yonent yi ak ñépp ci yem liggéeyal yàlla al amalu lid din masuuliya lil jami liggéeyal yàlla ñépp la war yuusuf xoolal tey génn na ci pale ak taraanga yeeg lekk yu neex yeeg lal yeeg yëre yeeg ligs beeg waruwaay yi tey moo ngi ci kaso waaye mu yëg ne dafa yenu responsabilité warul ñëw rek toog ak ay seenam kaso ak tàngaayam kaso ak xataayam kaso ak métitam ak seen yeeg ñàkk liberté bi ak tilim gi xiif gi terewul fa isa bi yusuf yu xawilu sijin madrasata tawxid kaso lañ ko dugal moom mu transformé kaso bi def ko benn école bu ñuy jàngalee tawxid noonu la nit di def noonu la jullit di def maanaa coono du la tëral feebar du la tëral xiif du la tëral mar du la tëral sa chaque jour yaa ngi yenu responsabilité l'islam tëj nañ ko kaso mu ne yaa saahiba sijini yéen sama mbokk yi ñu boole tëj ci kaso bi maa ngi leen di laaj a arbaabun mutafarriquuna xayr amillahi alwahidi alqahar ay yàlla yu tasaaroo a arbaabun mutafarriquun yàllaay ndox yàllaay xeer yàllaay lam yàllaay petaaw yàllaay béjjén yàllaay gàllaaj yàllaay kuur arbaabun mutafarriquun ay yàlla yu wuute yàllaay bàmmeel yàlla nit yàlla yàlla yàlla jinne yàlla yu wuute xayrun moo gën amillah alwaahidul qahar ndax kenn kooku tudd yàlla alwaahid ki nekk kenn alqahar ki domine monde bi téye ko ci loxoom kenn dara du rëcc ndax kooku moo gën wala ñeneen ñee gën yi tàqali koy ah benn nit bu am benn yàlla ak benn nit bu am fukki yàlla ñuy liggéey kan moo ëpp liberté ah ki am benn yàlla maanaam ki am benn patron da koy wax yow de raxasal ma sama oto bi kenn ak fukki patron la am su ko kii ne raxasal ma kii ne ko eh demal marché kii ne ko eh dagal garab gi kii ne ko eh kan moo gën a sonn kon mbokk yi dëgg-dëgg benn yàlla jaamu benn yàlla mooy dëgg waaye topp yàlla yu bëri yi loolu tax Yuusuf gis nga lu mu njëkk a def mooy ñee laaj-laaj bi tontoogu leen de mi ngi ak ñoom ci tawxiid pour ñu kennal yàlla bàyyi caaxaan yi ñu nekkee parce que ñoom jàpp nañ ne azizu azizu misra mooy yàlla jàpp nañ ne haamuun mooy yàlla parce que ñu ngi fa buxaaba yaa ngi fa di lekk alal alal doomu aadama yi Égypte pour mu wax leen ne lii du yàlla gis nga ci biir kaso bi commencé na ak prisonniers yi ñi ñu tëj mu ne leen ndax yàlla yu tasaaroo moo gën wala benn yàlla maa taabuduuna min dunihi jaamuwu leen leneen lu dul yàlla illaa asmaan lu dul ay tur kese sammaytumuhaa te tur yooyu yéen a ko tuddee tur yi bi muy ñëw ci àdduna tudd ko woon capitalisme ñen ñoo ko fi indi yàlla libéralisme ñan ñoo ko fi indi socialisme ñan ñoo ko fi indi ah lépp lu ñuy jaamu tey ci kaw suuf nit ñi ñoo ko créé waaye yàlla indiwu ko même xawmu nuux yàlla yi doon jaamu ah laa tazarunna alihatakum wala yazarunna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yahuuqa ñan ñoo ko indi yàlla moo ko wàcc moo tax mu ne leen maa taabuduna min dunihi jaamuwu leen leneen lu dul yàlla lu dul illa asma lu dul ay tur la mujarradu ism yéen rek yéen a ko tuddal tur rafetal ko ba mu rafet naan ndeysaan ko dum do fekk du dara ko inde tan moom doo naan ay dara tur kese la ñu def ko yàlla te yéen ñii sammaytumuha yéen a kere tur yi yéen wa abaahukum ak seeni baay maanaam ñun bëri na lu ñuy def tey fan lañ ko jëlee ci sunuy papa ah lam dam ñaagetaa ko jàmm wala jëtu leen dum xorom kenn du ko ñaan guddi fu ñu ko jële suñu reeree ba pare kenn du raxas bool yi fu ñu ko jële puso kenn du ko jaay guddi fu ñu ko jële tabbat yadaa kenn du ko jàng guddi fu ñu ko jële ci sunuy baay yéen a ngi ni toog mës ngeen dem ci jàkk ilimaan bi jàng tabbat yadaa kii gée ah jàkk benn imaam mu ne allahu akbar tabba ñu subhanallah subhanallah waa jàkka ji naan ni subhana waa ji kon nag tabbar yada subhanallah mooy bàyyil tabar yi daal jëlal beneen saar jàpp nañ ne guddi gi ñoom ñëpp dañuy dee waa ji dangiral rek jàng ko ba mu jox tak pare tourné benn baa ne ko waaw bàyyi leen biñ leen di wax ngeen di jaay Dakar bopp gis nga da ngaa fekk fii mag ñi kenn jàng tabati yada ak guddi waaw bu fi indi benn problème bu dee yow léegi lool ngay def fii kenn dootu la fi jiitalati loolu lan la loolu illa asmaun sammaytum wa antum wa abaukum ay tur la yoo xam ne yéen ak seeni baay donc yéen a ko créé amul ma anzala allahu biha min sultaan yàlla wàcce ko amul dalil yi ñuy def fii yëpp amul dalil kenn du def lii kenn du def laa lii la lee la ma anzala allahu biha min sultaan yàlla nee na kenn amu ci dalil amul maa yaamuru llahu taala bi ibadatiha yàlla santaanewul nañ jaamu xërëm yooyu nawun min min anwaai ibada ñu jagleel leen lenn sax ci jaamu yi daganut ndax duñu ay yàlla mu ne sunu borom subhanahu wa taala nee na inil hukmu illa lillah gis nga atte yàllaa ko moom allahu akbar kenn warul atte lu dul yàlla atte dafa garaaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na attekat yi ñett lañ ñaar ñi safara lañ jëm kenn ki mu ngi ci danger atte yàllaa ko moom dafa rëy kenn waru ko coobarewul comme tey li am nii di def lu la neex atte di def lu la neex ku nekk ci dëgg nga jox ko fen kuy fen jox la xaalis nga kii ko benn waay juge la juge waaw juge bu mag bu am doole benn waa dëkk ñëw rek ne ko juge dañoo bëgg nga nga nga nga nga nga jàppal ñu diw mu ne lu mu def moom dafa jël benn xaj dem sur ko ci armée lu jullit yi ñu ne mu ne xale subhanallah laa la def ñu ne xaj la jël suur ci armée lu jullit yi mu ne wan leen ma ko rek waa ji daal di ñëw mu ne ko yow ana xaj bi mu ne ko suul naa ko mu ne foo ko suul mu ne waaw xam nga xaj bi balaa muy dee dafa defoon wasiya wasiya mooy testament daf maa jox deux millions mu ne ma naa la ko jox yow juge bi mu ne su dee naa ko suul ci armée li jullit yi mu ne waa nga dëgg waa nga dëgg xaj bi jullit la mu woo waa dëkk bi mu ne wax na dëgg de wax na dëgg ñu ne ah mu ne xaj bi jullit la moo tax mu waaw baax na amul benn problème lan moo tax mu ne xaj bi jullit la bis nga waa ji nu mu ko jàppee xaj bi balaa muy dee dafa def testament mu ne yow juge naa la jox 2 millions après bu dee naa ko suul ci armée lu jullit yi rek juge mu ne waa ji waxagul dara de juge mu ne wax nga na dëgg wax na dëgg xaj bi jullit la loolu mooy loolu mooy adduna bi tey loolu mooy àdduna mooy tey léegi la ñuy jël fen fen léegi léegi léegi léegi ñu defar ko ba mu rafet léegi ba ñëpp gëm ko léegi ñëpp léegi dootuñu wax ne ay fen la moom kay dëgg la mun na nekk mun na nekk fan la mun a nekkee xaj bii def testament fu ñu ko gisee ah lan moo tax mu nangu ñu suul xaj bi ci armée lu jullit yi hmm? benn mbaam daa dee bi mbaam bi deewee waa koñ boobu ñu téléphoné mairie bi ñu ne mai- mairie bi mbaam bi dafa dee fii te mu ngi xasaw fii waa mairie bi bëgg a wax mbokkam yi yéen ñëpp mbaam ngeen yéen a yem ñu ne mbaam bi na ko mbokkam yi suul waa koñ ba ñu ne naka lañ koy suulee te seefu mbaam yi joxewul autorisation fan la ñuy jëlee autorisation bi du mairie ba kon ki fa nekk mooy seefu mbaam yi voilà ak c'est que loolu mooy sunu àdduna tey mooy dañuy jàpp diine yàlla bi soo indee xaalis rek wala nga takk ndomba tànk bu garaaw rek ñu ne waaw noonu la kenn dootul wax du dëgg dañ naan waaw noppi ñenn ñi dañuy noppi ñenn ñi moom dañuy nekk ay naafiq mun naa nekk dëgg la kay mun naa nekk benn buur dafa ne cey batañse ak a neex fa la yem rek kii bi éehée batañse boo ko booleeg yàpp batañse boo ci defee nangam cey boo ko baxalee moom kenn rek buur bi mu ne batañse moo bon dama koo lekk sama biir metti dafa daaneel rek buur bi ne basante moo bon dama ko lekk rek sama biir rek mu ne basante cey boo ci ëppalee moo yées ak a xasaw nag mu ne ko lekk sax te ñorut rek buur bi mu ne ko mais yow mu ne ko eh man yow laay jaamu jaamu moo ba tañ soo nee neex na ma ne neex na boo nee naqari na ma ne naqari na sama yoon ma yow léegi léegi ba tañ sa neex na léegi léegi ba tañ sa baaxul même pas trois minutes moo tax kooku ne ko eh mu ne ko dimbali ma man yow loo wax lool xoola ki taxaw assemblée naan man moom luñ ma wax rek ma def ko loolu dégg naa kenn ci ñoom mu ne miin soo wii kam yow mu wëpp njuulu ni mi woppadu danañ def portable yi mais lii wala ngeen def ko silencieux moo gën parce que day yàq enregistrement yi imagine lu nit di waxee man diw su ma nee bàyyil julli ma bàyyi julli la ilaha illa allah muhammad rasul léegi kooku lan la ci yow ban place la nekk ci yow lan la yàlla la su la nee bàyyil julli ma bàyyi julli su la nee bul woor du ma woor man su ma nee fii ma taxaw su ma doon julli ma julli ñaari ràkka mu woo ma téléphone ne ma bu bul eggali mu ne ma dagg ko foofu ay Sénégal leer na waaye bisa ngi ñëw di nga dugg ci biir bàmmeel malaaka woola kooku du tontu de ñu ne la ana ki la waxoon bul julli ana ki la waxoon na nga na nga dagg julli gi anamu allahu akbar wala suñ borom ne yowmal xiyaam keroog bu ñëpp taxawee yàlla mu ne dajale naa leen te yéen ñëpp yéen a ngi nii acca maalakum laa tanasaruna lu tax du ngeen dimbali bal kum bal antumul yawma mustaslimun allahu akbar yéen ñëpp da ngeen di jébbulu sukk ci kanam yàlla ndax ñi ngeen doon woo dem nañ kenn du taxaw dañu bàyyi xel dañuy dee dañuy dugg bàmmeel te bu ñu demee bàmmeel ñun dong ak keneen du fa nekk kenn du fa nekk suñu borom nee na inil hukmu illa lillah atte yàllaa ko moom moom yàlla amara allah taabudu illa iya dafa digale amara ndigal la joxe ndigal bu kenn jaamu kenn kudul moom lii kay leer na nee na zalika diinul qayim li mooy diine bu jub bi walakin aksara annaas laa yaalamuun allahu akbar walakin aksara annaas laa yaalamuun walakin aksara annaas laa yafqahuun walakin aksara annaas laa yuminuun walakin aksara annaas saa jo saa yoo gisee aksar rek yàlla lim ci teg du baax moo tax loolu benn mbir la boo xam ne nañ war nañ ko bàyyi xel ñun tey bokk na ci li ñu pénaliser danga naan mbooloo mi foofu la gën a bëree tey ji bu benn waaye ñëwoon ci stade bi stade bi fees daal ñëpp sol yëre yu weex mbaxana yu weex dàll yi weex lépp weex rek benn waaye dana ne lii di est-ce que lii du dëgg lii moom rafet na de affaire bi du rafetaay affaire bi du mbooloo bu bëri bu doon mbooloo bu bëri la yàlla du ne walaakin aksara naas laa ya'lamuun ñooñu bu ñu bëree te xamuñu nag man sens la am wa maa yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun ñu ëpp ci nit ñi duñ gëm yàlla dul ay bokkaalekat lañ kon bëri amul njëriñ xam nga lan moo am sens mooy nga nekk ci dëgg yow bul xool mbooloo bu bëri nekkal ci dëgg waaw ëllëg yowmal xiyaam dëgg lañ lay laaj duñ la laaj ci mbooloo moo nekkoon kon ixwaan yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne amara an laa taabudu illa iya zalika diinul qayim walakin aksara annaasi laa yaalamuun yusuf ba léegi déggu leen mu ŋaang tontu mbokkam yooyu laaj bañ ko laajoon lan la leeral balaa muy tontu laaj ba gis nga indi na tawhid bi pare leeral na tawhid loolu tax boroom xam-xam yiy jàngale dañu war di profité ci yu mel nii bu ñu la laajee benn laaj ci mbooloo balaa ngay tontu leeralal ba pare lu bëree bëri nga doog a dugg ca laaj ba nag wala yusuf li mu leeral tawhid bi mu leeral ba pare mu doog a tontu mu ne yaa saahibay sijin yéen sama mbokk yi ñu tëjaale ci kaso bi amma ahadukuma kenn ci yéen kooku luy atteem fa yasqi rabbahu xamran dinañ ko génne mu continuer di jox patron sàngara muy naan ndax looloo doon liggéeyam danaan jël sàngara bi dëbb ko ba mu mokk mu daal di koy nal mu daal di nekk ji mu jox góor bi mu naan kooku loolu la doon liggéey mu ne ko dinañ la génne nga continuer sa liggéey boobu mooy ngay nal sàngara di ko jox sa chef muy lekk sàngara cosaanam lan la raisin gis nga de cosaan bi dafa dagan après ba mu nekkee sàngara mu araam fan la déparé raisin raisin dagan na waaye ba ci doomu aadama dugalee loxoom changé ko mu nekk sàngara moom la ñuy jël nëbal ko denc ko ba mu nëb ñu def ko ba mu kii jox gaa yi di naan moom la ñuy def sum-sum ah gaa yi di naan da ngay dégg ne waa ji sum-sum lay naan sum-sum fan lañ koy jële ci garabu tiir garabu garabu koko moom la ñuy dem ba ci kaw ñu bënn garab bi samp ci butéel muy muy muy sotti ci butéel bi ba butéel bi fees ñu jël nëbal ko di ko naan noonu lañ koy defaree. darkase tamit noonu lañ koy defaree sàngara darkase xam ngeen ko dañ koy def sàngara dañuy def koko sàngara dañuy def raisin sàngara loolu yëpp nag dañ koy nëbal ba mu nëb nga gis doomu aadama di ko naan. waaye seen cosaan yëpp dagan na araamul keroog ba ci doomu aadama de dugalee loxoom def ko sàngara la araam kullu muskirin xamrun wa kullu xamrin xaraam bépp sàngara lépp luy màndiloo dafa araam bépp sàngara araam na kullu muskirin xaraam lépp luy màndiloo da araam parce que léegi sàngara la nekk ba pare luy mandiloo kenn du ko fajoo yenn saa yi nga dégg waa ji ne damaa feebar ñu bindal ma sàngara quoi ay comprimé yoo xam ne dafa am drogue moo ko naanee damay mandi ndax dagan na daganut ndax luy mandiloo kenn du ko fajoo yéen sama mbokk yi ñu tëj ci kaso bi kenn ci yéen dina génn continuer fii am na benn baat mu ne fa yasqi rabbahu xamran baatu rabbahu li muy tekki ci arab ah boroomam est-ce que kooku moo ko moom moo tax fii tekkiwul boroomam lan lay tekki ah patron lan moo tax yàlla utiliser rabbahu parce que kooku moo ko yar ñooñu ma kooku moo ko indi ci kër gi moo koy liggéeyloo kon baatu rabb fii tekkiwul ki ko moom comme yàlla nim ñu moono parce que xam ngeen ne yàlla mooy rabbul alamin mooy rabbin naas mu ngoog patron lay tekki amal aaxar bu fekkee keneen ki nag kooku fa yuslabu dañ koy christifié xam ngeen christifié mooy daaj loxo yi nii loxo bi nii loxo bi nii daaj bopp bi xëcc tànk yi daaj ko loolu mooy christifié fa yuslab fa taakulu tayru min raasihi après picc yi dañuy ñëw muy dund picc yi di lekk bopp bi di luqati bët yi te fekk moo ngi dund rek waa jooju ne waaye dañ la doon nax rek maa kii dañoo toog rek ñu gis na yow lu ñëw avant avant dara di ñëw rek da ngay wax nangam ak nangam rek ñu ne nañ ñëw pexe mu ne xudiyal amru affaire bi am na de da ngeen may nax naxu leen ma jàll na loolu mooy am ci yow yow dañ lay crucifié kii moom dina génn moo tax gis nga doomu aadama albalaa um wakkalun bil mantiq balaa ngay wax defal ndànk gis nga léeg-léeg même kili kër yi da ngay gis yaay mer rek yal na nga dee mu dee yal na la oto mbëkk oto mbëkk yaa ngi nii di dem waaye yàlla boo delsi mu dem dee yow la gémmiñ balaa nga ciy wax dara xamal li ngay wax li nga koy ñaanal mu al ko ñaanal ko mu jub li nga koy ñaanal mu dee ñaanal ko mu dund gis nga ñaar ñi dañ doon nax Yusuf dañoo gis Yusuf nekk ci kaso bi mais balaa lekk ñëw mu wax leen balaa dara di xew mu wax leen rek ñoom ñaar ñu ne waaw nañ dem ñu seetlu ko waaye bu ñu demee kenn ki ne ko ñun dañoo bëggoon nangam ak nangam wax ko ñaan se ba ñu ngi waxee ba pare Yusuf ba mu leen tontoo ñu bëgg ne eh déedéet dañ la doon nax mu ne leen xuddi yàlla amru yàlla exécuté na ko loolu mooy am ci yéen ñaar kenn ki day génn kenn ki dañ koy rey te buñ koy rey dañ koy takk ci garab yi picc yi ñëw di lekk bopp bi ba mu dee di cof yuur bi cof bët yi yóbbu ko ba mu jeex takk lekk yéen yi dañuy ñëw cof biir bi di génne butit yi parce que mooy picc yooyu di lekk ni tan tan nga ni ko bu dee dañuy ñëw lekk la buñ la suulu rek ñu lekk la wala rabu àll yi amma ci kaw garab gi picc yooyu di lekk ay nit ñoom ñoo ñëw lekk la mooy tan yi ndeysaan noonu la waajooju deewee noonu lañ ko reyee christifié ko tan yi ñëw lekk ko ba mu jeex tàkk ndeysaan yusuf ne xudiyal amru lezi fii tastaftiyaan lii mooy mbir mi nga xam ne moom ngeen leen moom ngeen ma doon laaj léegi nag mu wax kenn ki nga xam ne moom danañ ko libéré mooy kan mooy kan mooy ki war a génn war a defari ji sàngara bi wa qaala allazi zanna annahu naajin minhuma mu wax kenn ci ñoom ñaar ñi nga xam ne xam ne ne kii mooy rëcc mu ne ko waaye ngalawaay boo génnee boo demee ba pale ba uzkur ni inda rabbika boo toogee di jox buur bi raisin ne ko waaw Yuusuf moom lan mooy mbiram nga fàttaliku ma foofu quoi dégg nga amaana dañ maa tëj fii fàtte ma soo demee nga ne ko Yuusuf day mu ngi ci kaso ba ba tey ah moo tax fii yàlla mere Yuusuf yàlla bàyyiwaat fàtteloo waa ji bàyyiwaat Yuusuf ay at ci biir kaso bi moo tax nit na xelam di dem ci yàlla balaa sa xel di dem ci kenn aajo boo am balaa ngay dem ci nit jullil ñaari rakka sujjootal ñaanal yàlla ba pare nga doog a dem kenn waxu la bul dem ci nit pour sa aajo faju waaye balaa ngay dem ci nit ñi joxal mbir mi yàlla ba pare nga doog a def nga doog a dem gis nga Yuusuf fii dafa fàtte yàlla li ma la doon wax sànq ismatul anbiya maanaam ñoom lii mooy seen bakkaar ñoom lii mooy seeni bakkaar lii la leen yàlla di meree te loolu valable na pour ñu li mu def nii sax est-ce que bakkaar am na ci waaye ku toll ni ab yonent nga bàyyi yàlla nga naan waa ji boo demee ci sa patron nga ni ko waaw Yuusuf moom lan mooy mbiram ak Yuusuf moom yàgg na ci kaso bi de maanaam waxal sama tur rek ba xelam nekk ci man te xamul ne ba ñu koy génne ba ñu koy dugal kaso xamul ne kii war a dem tey di joxe ji sàngara bi fa muy liggéeyee ak moom ñu ko tëj duñ benn Yusuf ña kan moo ko tëj ah premier ministre moo ko tëj waa ji fan lay liggéeyee palais moo tax bu mu demee di wax foofu mbiru di ko bugg ko faa fàttali kenn du xam sax lu xew parce que tëj nañ Youssouf président bi xamul ne premier ministre bi tëj na benn jaamam parce que tey loolu moo am ci àdduna bi lu bëri da ngay gis ministre wala nangam wala kenn ku def dara fekk président bi yëgu ko lu dul rek yenn saa yi nit ñi ñëw wax ko mu ne man yëguma loolu ñaata président lañ fi am am na benn président boo xam dañ ko ne yow yëg nga ne Sénégal dañuy jaay mbuusu café juróomi dërëm ak mbuusu meew juróomi dërëm ak dagg boor juróomi dërëm mu ne yëguma ko gars yi daal di indi mbuus yi won ko stt moo xamul ne sénégalais yi bàyyi nañ jënd café pot mbuus ba coodata mbuus bu jooy jaay ma foofu mbuusu café juróomi dërëm jaay ma mbuusu meew juróom jaay ma benn dagg boor juróom jaay ma juróomi dërëm mburu cent franc nga dem ndékki ji lebal ma foofu juróomi dërëm suukar ba suba allahu akbar moom ñu wax ko loolu mu ne man yëguma ko mboolem président yi fi toog am na yu xew ci Sénégal boo leen waxee ñu ne ñun yëguñu ko ñan ñoo koy def ñi ñu àndal ci seen suuf ñoo koy def te ñoom duñ ko yëg Euh, Youssouf wax na waa ji bu ngeen demee boo demee nga fàttaliku ma ci sa kanamu patron allahu akbar fa ansaahu seytaan yàlla def seytaane fàtteloo yu- waaja turu Youssouf fa ansaahu seytaan zikra rabbihi ndeysaan mu fàtteloo ko ana ay ati ati lëmm yu bari yu takku Yusuf nekk ci kaso bi ndeysaan fa labisa fi sijini bida sinin mu nekk ci kaso ba sax fa ay nangami nangami ay at bidaa sinin ñaata at la Yusuf ñaata at la nekk ci kaso bi ah fukki at ak benn hmm. loolu nga wax lan mooy dalil bi bidaa saa yu ko arab waxee lu muy tekki bidaa siniin saa yu ko arab waxee bidaa lan lay tekki hmm? mooy ay at yu tóol la ay at yu tóol ah loolu lay tekki tëj nañ ko fa at yooyu takku bokk na ci li tax yàlla def at yooyu tóo bëri mooy li mu wax waa ji boo demee nga fàttali ko ma ci sa patron yàlla nee na waa ji seytaane fàttaloo ko mu sax fay at yu takkoo takku almuhim la mu fay nekk yëpp fàttewul mission am fàttewul ne moom ab yonent la fàttewul ne dafa war a waaraate fàttewul ne dafa war a liggéeyal yàlla tabaraka wa taala kon incha allah mbokk yi ci tënk bu gaaw loolu moom mooy darsu tey ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu jéggal ñu njuum tey def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.